yéyé Salam La Mif xalif depuis le from Diamniadio ñoo ngi nii biir rap de saison 4 ci commentaire yi nañ ci saf saf xalif from Diamniadio lu së baaxee du teel bu baax let's go yéy bichon d'arôme fait Visez le ticao com comme la marque C'est le préface de ma plein de dangers Mon gars est pour le vieux danger La rouge est allée pour changer Joli corps de complexe n'est plus sensible Yeah, yeah, yeah, what's up, man? Bye, Halif Jibril in the house, yeah. Oh. Yeah. jàpp te seen lay doon bugguma la teel sa xol télé bi fi mu nekk sax sa bopp amatuma xol dama leen débutant booy xam nga ni maa mel noonu ci digg àll man doom teg sa noonu pour pese by force teg sa noonu pour pese by force. hey yow naka laa nga nekk sa temps lu ma daal booy jox xaar booy bii maay dirigé maay seen tool c'est une comme diggé sa jour day xool sama wax mooy dinaa ni maa mën doon da nga jël paata booy teg bopp laa ay dirigé dafa sama bopp c'est une dirigé

tot hoe mijn deur was. Dat kan nog gewoon weer een limiet naar mijn eigen injectie. Zomaar daar ben je weer deze zaad. Probeer zijn eens, zag ik de sneeuw. Dat zo'n eu pijn, dat gewoon een deur. Hey, je zoekt nooit weer van laat je. Je doet zo'n boven, dat laat niet. Je neemt je zo'n boven, lijkt daar. Duur, laat me je dingen, maar dat niet. Daarom ben je tot je barba, het kalas. En boy, moet je jagen, maar je kent ze kalas. Het moest je daar de duur, de minuten samen. Ik moet je wat ik dan staat. Hey, bless die guy with bigot. puudar ci baar yi ñu bëggee dégloo ma xel ñu jox ma seen cervelle bless bless bless ci baar yi ñu bëggee puudar ci baar yi ñu bëggee dégloo ma xel ñu jox ma seen cervelle projet bi daaw ci marché bi doo ko gisati moo leen yii la visé wu gaa seen ñu caché yi yéema ci nelaw rek gis ma seen génn seen rapport yi jàpp ci jàpp ci saa ñu liyee ñu bëgguñu kii bi soo hey wow projet bi daaw ci marché bi doo ko gisati moo leen yii la visé wu gaa seen ñu caché yi yéema ci nelaw pas jàpp ci saa yu ñu leen wow wow wow. Gang, il gang, gang, gang, gang. bang bang.

daaka ji xaalis dugal banque doon kenn yu big mafia kenn bi may papa rab ba daawal mbay baax ki la ngeen lay day moo ngi nice am kay bàyyi ba deful kenn deful ndax rab bi amul bankas yàlla dem moo ci gratos répé doon pos ami gos dugal fultoo samay poos ñemewu ma sax di sol jàppal lu jaar jarul jàll leen lu jarul jaar def naa lu wax tey naa bakkaar mais yàlla rek a xam lu juu nekk tuuti succès te baax bi mooy liggéeyu nday exilé samay bëgg bëgg pour mën a àgg fi ma jëm yàlla yàlla bay sa tool yi nga ji ngay góob yéen a nekk bàyyi ma xool ci xol bi lu fay toog minute de silence dans le fromage des cadavres am bi chaque jour ci plaignant rek la ay détails bu dund calmement bu def lu baax ñu fay la lu bon ndax du ba teg si c'est normal ndax yenn saa yi ku ma jaawle tête de fils peese doo ma teel a jëlee ko ci kaw sax laa bu teel dugal ci mama sànq ci mama ans hey dama bëgg a fly dama bëgg a fly mënoo ma ko xaañ mënoo ma ko xaañ hey mama wax na taay mama wax na magari, idzie na magari Ej, nowa butterfly, nowa butterfly Mono mo kochań, mono mo kochań Ej, mama łach na taj, mama łach na taj Ej, idzie na magari, idzie na magari Nie magari, idzie na magari Ej, namu samochód, ten namu magari Ej, hamoli ma ton, hamoli ma sań Ey, jamal samay son, le reste boulkham Le reste boulkham, bokkun ci top modèle yi yàgg anticiper yi ndax booy bi def na bien lii bakkal nañ ci yàgg teg même bu ñu nekkee ci foor bi bakkal nañ ci yàgg teg pour képp kuy ràcc ci réew mi dama bëgg a fly dama bëgg a fly mënoo ma ko xaaj mënoo ma ko xaaj ay mama wax na taay mama wax na taay lii di nama gaay lii di nama gaay ay dama bëgg a fly dama bëgg fly ay mënoo ma ko xaaj mënoo ma ko xaaj ay mama wax na taay mama wax na taay ay lii di nama gaay lii di nama xaalis dippi la woon bi rap rev mais na saf sapp ci commentaire yi xaalis dippi monsieur mu ngi baax